dafa am loo xam ne su xewee dañuy soxra boroom xel yiy xeltu waxee ci ci xel mu sell ngir wax bu rafetee ci digg pénc mu mun naa jurub jàmm Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo Mohamed Boun Abdoulaye Dionne Ali Nguy Ndiaye maam booy jaaw képp kuy nit daf leen di jox cër ndax nit ñu cëru ngeen ci senegal gi ngeen dëkk faj ngeen fi gàcce jàng ngeen am ngeen xam-xam jiite ngeen ay institution yu am doole loolu nag ku amul cër rek moo leen di ñàkkal cër waaye ku am cër te xam ko daf leen di fonk jox leen cër bokk na ci fonkaange googu nag mooy fàttali wante su fekkee xam-xam rekk ak wax ak résultat kenn du Abdoulaye Diouf Sarr ci réew mi waaye dafa am ay erreur yoo def yu bari yoo xam ne tax na nga ñàkk mairie sa mairie ci xale bu ndaw boo xam ne duñ leen nattable ci jàng duñ leen nattable ci résultat ndax ministre de la santé li nga ci def ci ron Macky Sall gis neen ko bëgg la du tax ñu waxal la loo defut waaye bañ lay du tax ñu ne defoo lu baax loolu lu baax la nit ñi gis neen ko waaye say njumte nag moo waral nga perte ba pare perte Dakar président perte ko te mu wóolu la jox la cër bi nga moom njumte yi su ma demee boo wax ko day mel ni damay xaste te wax dëgg yàlla nag xasit warta xaste te man gën naa ne maa gën a yées ci nit ñi njumte yooyu ba tey defaroo ko ndax njumte yu weesuwul daje ci siège APR ne Dakar ñaari candidat la am te waxtaanoo ci joxuñ la ci ndigal te parti bi am njiit beneen njumte ngi noonu euh, ku ñàkk sa localité na ci xale boobu bokk na ci suturaal parti bi war a bañ am audacité na da ngay laaj dinaa nangu nag politiquement ak stratégie politique yëngatuñu xam ne yaa ngi fi ndax waxoon naa ci su may wax ma ne fi situation yi toll Abdoulaye Diouf sar nag bu jëm daral la ci politique ci ay saam rek lay mujje walla ñu fees der bi dama toog ak benn kilifa gu xorom lu ku mën baatin la waaye nag dafa xorom la mu ne ma Abdoulaye Daouda Diallo boo ko gisee ay nag rek ngay xalaat ma ne ko ah pël la nag te sàmm la xam ma ne ko sàmm métier bu noble la ndax yonent yàlla Moussa moom doon defal soin bu yonent yàlla Muhammad def na ko eh, am doole ci administration ak am doole ci peuple du benn Abdoulaye Daouda Diallo Déthié Fall yàlla daf leen xañ bayre ci politique te politique nag eh, bu doon jàng rek diw du peese lii ci politique ak diw ak diw bëgguma tudd turi kenn ngir bañ a tuutil doomu aadama waaye su fekkoon équipe la yow average player nga mooy jou comme Abdoulaye Naam Moustapha Naam jël na Coupe d'Afrique mais joué benn mat mais baaxoon na ci toog ci banc bi mais Abdoulaye Daouda Diallo mënta nekk titulaire donc suy laaj nguur dafay am du ko naqar rek mu koy kebetu mais buñ ko bàyyi woon ak toogu nguur gi na ko demal toog fooguma mu dem toog fa ndax ku xam boppam la ku diiñ la Mame Boye Diao ni Sadio Mané tege woon penalty bi dugal ko sa penalty politique da nga ko rate ndax munoon nekk ci gouvernement mu dem ba xeex kenn nga toog affirmer sa xaritoog moom sa montre que amoo kóllëre te fekk sax mën na ñàkk nuru loolu ak yeneen yoo xam ne ma ne su ko wax nag ndax senegal dafa xat te xamante Aly Ngouille Ndiaye euh, dafa am yoo xam ne bu ko nit waxee dafay mel nii nga mere yaay xamoo foo koy jar rek saaga doom ji saaga doom ji yaay ji nga saaga mais sa mérite bien vrai que même pas deux cent cartes nga gañe mais victoire victoire rek la Mourinho mu ne a win is a win no matter how you win gañ moom gañ la rek gañe nga sa localité te nekkoo woon ci nguur loolu félicitation la mais dafa am loo xam ne tekk mooy tax nga jot ko bi ngay nekk ministre de l'intérieur bokk na ci lu la fa génnee mooy njiitu réew am information ne yaa ngi itteewoo seizième te xut bu samaan ku ko bëgg a doon rek yaa ngi xaar dëjëm donc ambition boobu su demee ba certaines situations certaines conversations war caa am dañuy laaj ci question yu bari te wax dëgg yàlla duñu question juddu bi ndax fii nga juddoo xam neen duñu question ne tabe geeg mbaax gi ak li ngay peese ci parti bi mais lan nga mun a peese ci réew mi te liñ wax bu dee dëgg la ne danga ne buñ jiitalee ki nga topp ko waaye bu dee ki da ngeen di waxtaan carte su table peese dara waalo ak peese ko ci senegal du benn ndax Sénégal du waalo rek waaye waalo ci biir Sénégal la bokk te bari na Linguère place yu baax boo fa xool Njaay la sant war nga mën a defal dëkk ba plus bien vrai que yaa ngi góor waaye fi ngeen lajjee yéen ñi ma tudd mooy ci benn réunion Abdoulaye Seydou Sow xam nga lu mu wax président sa lépp rafet na mais kan ngay jox caabi yi waxi Abdoulaye Seydou saw boobu dafa tombeek waxi Julius Cambara ñeree rek Amadou Ba dafa wax ju am solo daf ne man awma problème mu personnage personne non non non Cheikh Omar Touré radiyallahu bokk na ci ngëneelu ndeyam Alaaji Maxtaar baayam dafa sañc dëkk am ñaari néeg wala ñetti néeg benn moom benn bi pour benn jabar benn bi ñaar ko war a bokk kum laaj nga ne ko boole ma ak Fatou Thiané doy na ma mën naa ànd ak moom ñu laaj Fatou Thiané mu ne ko koo ma booleel baax na mooy sangi jigéen ñi Amadou Ba la fet que mu ne man aw ma problème mu personnage wane na mbaaxam ak crédibilité beneen ba ca des mu ne su ma amoon mébétu doon président de la république damay waaxu ba ci suma kilifa na ko lii laa bëgg loo ci xalaat mooy ne am na kilifa waaye kilifa mi respecté na ko te amul ci àddina muy góor muy jigéen muy jabaram muy doomam yi muy ñim toppal kum mës a wax ne am na ambition doon président de la république wala taxaw liñ ko fal en tant que premier ministre ci la ne lijjantiwul leneen mais discours am bi danga nga ciy xoolee ñetti mbir te ñetti yooyu rek la ñuy soxla ci senegal mooy ko am kóllëre la ku nangoo liggéey la ndax posture biñ ko teg en tant que jëwriñu réew mi nanguwul politique waaye beneen ba mooy ku reconnaissance la dafa reconnaissant euh, am kóllëre nag dañ koo soxla ci senegal ndax kóllëre tabax réew mi am kilifteef dañ koo soxla fii waaye position bi mu taxawee bu jëlaate réew mi continuité la te yéen ñi muy xaccool kenn ku ci nekk sa acte wane na na mérito woo ko ndax arab yi ñu ne ku naan man la rek du man waa ji den ko naan yow la muy bañ te xadisul qudsi dafa wax mu ne bu yàlla jëlee décision ci xaras dafay woo jibril mu wax ko malayka yi nit ñi ñëw ñi xamut amadu Ba bëgg neen ko am na ñu ko bëgg te soo leen laajoon lu mu wax xamuñ ko ndax pattaralam ak noppeem dafa dem ba doon jama moo tax su waree wax réew mi yëpp xerewlu lu muy wax moo tax président ma lay xamal ne jël ku peese dara APR ça veut pas dire peese na dara Benno Bokk Yaakaar ndax kat mbir mi du APR rek trois 300 parti ñoo nekk ci biir tey Abdoulaye Daouda jàlloo muy bun jonn muy Aly Ngouille njaay muy euh, Mame Boye Diao ëpp ñu doole ki Moustapha Niass war a mën a taxawal pour mu jiite AFP ëpp ñu doole ki PS war a mën a taxawal ñu ma tudd bu xalifa Sall dellu woon PS moo leen ëpp doole junne yoon Serigne Mbaye Thiam ancien ministre de l' éducation moo leen ëpp doole Aminata Mbengue Ndiaye moo leen ëpp doole Aminata Tall Sall moo leen ëpp doole Aïssata Tall Sall donc euh, parce que APR nga bokk joxul la crédibilité nga war a taxaw ne yaay nekk candidat wu APR benn Benno Bokk Yaakaar ginnaaw président de la république loolu gàtt xel weesuwu ko. mais pataarale Amadou tax na xol yëpp di ko laaj moom neewut man la nit ñi ñoo ko ne yow la te ma wax la benn jàngat bu président tànnee Amadou Ba ci la Benno Bokk Yaakaar am sens jëlaat réew mi téye ko defaat liggéey bu rafet ci askanu senegal ak senegal waaye bu président tànnul Amadou ci la amado ëpp sens buñ ko tànnee Benno ñoo ëpp sens mais buñ ko tànnul amadoo ëpp sens pour plusieurs raisons lees waxul nag am na loo xam ne boo ko waxee ci nit mel ni da koy defaral da nga koy yàq moo tax arab bi mu ne soppe bu dof lu mu ne dana la ko defaral rek tey mu yàqu ko waaye li ma wax ñi xam li xamu yëpp xam ne li ma wax ñi xamul nag temps moo ñuy jugé man ak ñoom